Vibe Radio sama gars yi ci loolee nekkoon namoon naa leen yenn a ngi toujours seen chaîne Vibe TV donc tey nag ma wax a ànd ak yéen ci benn vidéo beauté donc ma indi leen nag semaine passée la la woon gommage gourmand ak suukar tey nag dama leen indi gommage ba nga xamante ne poobar la waaw poobar yéen a ngi laaj poobar di ngeen koy def ci seen lekk yi et tout mais li ngeen di fàtte mooy poobar dafa baax ci kanam surtout ci ñi nga xamante ne dañoo am vertigo mooy euh, maladie boobu nga xamante ne day tax ngay am ay taches yu sa kanam mooy dépigmentation bi donc. Euh, poobar dafa am pipérine mooy benn genre antibiotique ba nga xamante ne day rajeunir sa peau day dindi ride ma nga xam ñi nga xamante ne dañoo bañ a màgget maanaam mën ngeen def ay gommage poobar en plus poobar dafa am fer dafa am antibiotique donc ñu dem xool naka la ñuy def suñu masque léegi léegi. donc euh, poobar bi ngeen utiliser mooy poobar doom donc bu leen utiliser poobar bu poobar bu doom bi moo gën moom ngeen di mélanger ak. man huile d'amande douce laa koy mélangé donc bu leen neexee man ngeen mélangé ak ndox wala huile d'amande douce wala bien huile d'olive donc tuuti rek ngeen di def. alors boo leen defee seen mélange ba pare comme d'habitude rek da ngeen di jël tuuti ci produit bi ngeen commencé kii ko seen kanam en défend ay massage circulaire comme d'habitude donc sama gars yi comme ni ngeen gisee lii mooy sama masque bi plutôt gomage euh, ak poobar euh, donc nag bu leen fàtte toujours ngeen hydrater seen euh, seen kanam yi maanaam ngeen diw seen kanam yi bu fekkee masque bi poobar bi ak ndox rek ngeen ko defee mais bu fekkee ak huile bi ngeen ko defee mën ngeen bañ a diw seen yaram ndax huile bi dafa am déjà la nga xamante ni dina mën a nourrir seen yaram donc c'est une vidéo beauté fii tay, yam di dig très prochainement Chivibe TV bu leen toujours ngeen aimez vidéo bi ngeen partagé ko ngeen abonné ci chaîne bi pour mën am sama yenen contenu ciao. 2.3. le nouveau son.